ngaluntam kumma do min sotalen no plateforme o atemo alhaaji sengor le ti walla mala réel nemti a bari a ñingala comédie nemi ka fayna komin ko jinio jinio mo comédien nol timi yalan komin ko aba groupe ol e ka fami ye komin ko sultan Comedy. i believe that our, uh, our entertainment is something mi yalan komin ko is actually a uh, very uh, important you know in our life so today we have him in the building sultan comedy jinio Assalamualaikum, assalamualaikum. Wow. wow. Mesmo com é Wow. Jackson. <laughs> Sama ground. Si, <laughs> nggak semua orang ni, orang ni, tapi orang ni. kau ni wat. Kau ni. ah. am dara la. yaa ngi nice de. nii de dama xam ne tey damay am gan. su loolu dama la nii ah, nice la. dala de benn kii moom ko yónnee benn sista bu nekk UK moom a yónnee lii. sa chaîne bi nag. ceen bi a yónnee bi la xaj bi. ceen bi ceenam laa waaye sa swag bi baax na. gars yi ma doon nitaal ma ni laaj kerec kerec ma ne gars yi do it easy take it easy. gars yi non waaye dafa ni say say daa. yow yaa gën a Adama Barrow sax. bu la. ah xam kawas. Ah, ah, ah yow calme bi calme bi. foofu nga ko denc. bi calme bi la. waaw ndeysaan daanaan daanaan ku la ñëw. ndeysaan ci réew mi mu maa la gën kontaan. waaye dama fàttee diw nag. non alors loolu di ci dara. man man diw sax. man diw. man diw. beneen kola la. fa baax na. mbooyoo waaye dàll yi macha allah. waaye suñu bon bul di sumee nag boo eh. ah. fa dama fàtte sama calpe bi waaye su nekkutoon loolu ma la xaalis léegi. déedéet amu see bàcceeg baax waaye mun nga koo ceen bi. ceen bi waaw after show waaw. yow nag dañuy dem break ñëwaat jàkkaarloo sultan fii di toj. jéem a waaw waaw.